parce que ñu bëri dañ ci am problème ñu bëri des fois dañuy envoyé message yoo xam dañuy am jafe-jafe ci AdSense jafe-jafe ñi am ëpp leen la kese lay nekk mooy seen AdSense day jaxasoo ak beneen AdSense wala seen compte Google jaxasoo ak beneen compte Google ce qui fait que mën a am seen AdSense bopp dañuy bëgg a ubbi compte AdSense Google ne la am nga AdSense ba pare indil la ay jafe-jafe ci loolu nag lañ ñëw woon la nan ngay connecté ay compte yu bëri yu am bu nekk AdSense boppam yépp nga connecté ko ci Google te nga séparé ko ba Google xam ni benn bu ne bokkul ak moroomam pour bañ la si indil jafe-jafe wala nit ñëw sa kër bëgg a utiliser sa téléphone wala sa ordinateur nan nga koy créer le profilu boppam boobu mun na ci connecté comptam sans comptam jaxasoo ak sa compte voilà loolu mooy euh, vidéo tey bi euh, xam naa bu ñu nee ci fin bi nag am na lu bees loo xam ni euh, phase bêta la nekk phase test YouTube mi ngi koy testé Euh, benn membre sànq ci YouTube solution moo ma envoyé ay capture écran ma gis ko ba ma vérifié sama ay canal yi nga xam ne daa ñoo toll ci réutilisation gisaguma ko si canal ma yore bi am réutilisation ko ci waaye moom canalam ñëw na ci loolu nag phase test la nekk fin bi nag dinañ si ñëw wax ci balaa vidéo bee jeex leen waa loolu nga xam ne muy coppite bu mag boo xam ne YouTube indi nañ ko ci réutilisation de contenu muy loo xam ne avantage u youtubeur yi yëpp la rawatina ñi nga xam dañ doon am jafe-jafe ci réutilisation de contenu am na yu bees lu ci YouTube di waajal voilà dinañ ko expliquer ci fin 2021 bi incha allahu rabbi euh, léegi nag bala ñuy dem ci vidéo tay bi muy wan la nan ngay séparer compte Google yi pour bañ am problème ci AdSense yi dañ lay wax ni kanaal euh, bi nga xam ne mooy no copyright music indiwaat nañ ko ci Galsen Tube bi xam nga dama ko dindi woon parce que dafa am ay test yu ma doon def ci ay vidéo yoo xam dama ko doon testé Euh, bi ma koy testé ma koy testé ci canal bi ngeen mooy no copyright léegi moo tax mun ma koon bàyyi fii euh, parce que vidéo yooyu dafa nekk vidéo yoo xam dafa dafa privé ay yu ma doon testé la ma dindi woon ko ci Galsen Tube bi changé woon tam tur bi changé lépp ba kenn mënatu ko gis euh, ñu bëri nag day dañ ma ko daan laaj man leen dinaa ko indiwaat parce daa am lu ma ci def te pareegul léegi nag comme comparé naa ci ma ci paree sax dafa ma ko fàtte woon indi démb la ma benn membre si communauté Galsen Tube bi fàttali après ma dem modifié waat ko defaat ci logo bi ci nekkoon defaat ci yëpp ci nekkoon indiwaat ko ci li nga xam ne moom mooy euh, euh, accueil si Galsen Tube bi boo duggee ci Galsen Tube bi rek nii boo duggee ci accueil gis nga moo ngi nii ma defaat ci kanam pour ñi nga xam dañuy soxla musique libre de droit ñu cliquer ko nga xool Euh, parce que canal bi loolu la woon musique libre de droit lañ ci doon dugal yoo xam ni si musique YouTube la nag ay musique yu YouTube la ñuy jël monté ko defal ko image pour mu rafet yow après boo ko soxlaa boo cliqué gis nga boo ñëwee section video soo cliqué nga xool benn bu nekk rek euh, defar nañ ko ba mu rafet boo cliqué lien téléchargement baa ngi suufu vidéo bi nga mën a télécharger vidéo bi mën ko utiliser ci sa ay euh, projet YouTube voilà ñu cliqué benn nga xool nii la rek da ngay cliqué. soo cliquer boo ñëwee ci fii ci mu ngi nii ci suuf description bi di ngay si lien téléchargement baa ngi nii soo ci cliquer di nga mën a télécharger li nga voilà da ngay ñëw nga déglu bu àndeek li nga bëgg a def rek jeex na après nga mën ko utiliser léegi nag ñu dem ci li nga xam ni moom mooy bitu vidéo bi muy wan la ni ngay séparer léegi compte Google yi xam nga boo ñëwee ci kaw fii euh, boo xoolee fii si YouTube bi toujours boo cliquer xam nga solo ko YouTube moo nekk nii sa compte bi connecté wu léegi nag xam nga fi yaa ngi gis suñu logo YouTube moo feeñ fii mais boo xoolaatee ci kaw tam gis nga logo bi feeñaat ci kaw muy ci compte Google bi fii mooy compte Google bi fii mooy compte YouTube bi li tax mu benn logo bi feeñ fi nag lu simple la mooy compte bi ñu connecté ci Google en même temps bi ñu connecté ci YouTube moom lañ connecté ci Google ce qui fait que même logo bee feeñ bu fekkoon ni dañoo connecté beneen compte ci Google bi bu bokkul ak compte bi nga moom lañ connecté canal YouTube bi logo bi mën na wuute ak logo bi voilà bu doon nag euh, tam dañu compte bi ñu connecté ci Google compte bi amul logo da ngay gis rek lu mel ni benn genre affaire bu bëla moo ci nekk am benn genre dessin nit bu ci nekk boo xam ni mooy dessin par défaut yi fii euh, Google di def waaw du nekk euh, nit kii benn genre image la xam boo xam du am dara mais forme nit lay nekk léegi nag loolu loolu mooy li moo tax nag nga gis nii fii ñaari logo yi nekk benn mais su ma connecté woon fii par exemple xaaral ma xool ma connecté connecté fii beneen beneen canal ñëw connecté fi par exemple tey euh, YouTube solution voilà gis nga bi ñu fi connecté YouTube solution ji nga logo YouTube solution moo fi nekk ji nga fee ci kaw logo compte euh, li nga mooy Galsen Tube bi léegi nag soo bëggee créer profil ñaari option nga am dañ la ko won léegi ñaari option yi benn bu si nekk nag fii ngay jaare pour def ko muy ci logo Google bi ngay ñëw nga cliquer fii logo Google soo cliquer logo Google bi Google bi ubbeeku sa compte Google bi connecté wu moo nekk nii voilà léegi dina la indil fii ci suuf su fekkee nag comme fii yow da ko def benn compte connecté wu si comme lii apparaît fi du apparaître parce que lii dama ko ajouté moo tax waaw dinaañ la ko won léegi après léegi ñaari option yi ci suuf moom ngay defee loolu ñaari option yi benn bi si kaw lan la muy invité sànq bi ma leex naan la boo duggee si Google su fekkee defoo sa ko lu mel ni benn nit mooy ñëw comme nii lay mel mooy genre dessin bi Google def par défaut voilà moo fi nekk. léegi bii nga xam ne mooy invité mooy lan mooy présent comme li ma loxoon sànq su dee nit dafa ñëw ci sa kër wala daal yow sa appare dafa am keneen ku ko bëgg a utiliser bëgg si def connecté comptam te buggoo comptam ak say compte jaxasoo dangay dugg fii nga cliquer ko invité léegi soo cliquer invité par exemple ñu cliquer ko dem après sañu arrière at ñëw won la deuxième bi ajouté après wax la différence bi. ñu cliquer fi invité fii ngay cliquer soo cliquer invité léegi mu daal di dugal léegi nga dugg YouTube par exemple tey tapé YouTube voilà ba duggee YouTube gis nga léegi waa ji mën na gis nga connecté gis nga mu dugal fii connecté dugg email ak mot de a am nekk ci YouTube mu def li mu bëgg a def te loolu du jaxasoo dara ak sa compte voilà comprendre nga léegi mun nañ ko tëj fii ñu ñëwaat ba léegi si logo bi léegi loolu mooy invité invité bi mën nga cliquer dem mu du compte connecté foofu compte Google am compte YouTube am def li mu bëgg def yëpp su paree après mu supprimer ko te du jotee dara ak sa compte YouTube dina xam ni kii invité bu connecté la parce que YouTube moo def option boobu. beneen option bi nag mooy yow sa bopp bu dee yaa bëgg am canal yu bëri wala compte Google yu bëri bëgg leen connecté da nga bëgg daal ajouter fii beneen deuxième compte boobaa fii ngay cliquer soo cliquer fii page bi la lay ubbil. léegi nga wax compte bi nan la tudd ban tur la tudd su dee par exemple dafa tëdd YouTube solution ma bind YouTube solution par exemple mën naa bind YouTube ma bind YouTube solution exemple su ma bindee YouTube solution léegi defal na la fii thème yi ban couleur nga bëgg apparence bi am ko apparence mooy lan mooy lii verte ci kaw ak sa canal YouTube tam boo duggee wala nga connect ci compte Google bi couleur bi ngay bëgg mu nekk couleur par défaut daal bi nga xam moom nga bëgg mën nañ ko bàyyi verte mun nga choisir bu la neex nga wëj defee ñuul nga ñuul lay nekk boo defee rouge nga rouge lay nekk boo defee bleu gis nga bleu lay nekk voilà mën nañ ko bàyyi ci verte bi voilà mun nga ko bàyyi nii léegi fii ci suuf mu wax la ndax da ngay créer icône si bureau bi icône si bureau bi mooy lan xaaral ñu wàcc fii mooy lii waaw yii boo gisee mooy ñaari ma la waroon sànq benn bu ne defar na ma fi icône parce que dama bàyyi option boobu muy fi fii laa bàyyi dindiwu ma ko muy coché soo ko décoché dina la créer compte mais du créer icône fii raccourci ci bureau bi te nag raccourci bi baax na day tax boo bëggee soxla compte boobu kese nga bëgg a dugg du soxla ngay jaar fee cliquer compte yëpp génn nga choisir déedéet da ngay ñëw rek si logo bi nga soxla directement nga cliquer moo tax mun nga ko bàyyi fii mu coché voilà léegi looy def nga cliquer ok soo cliquer ok ah ñu taawi ko. soo cliquer ok di nga créer na la beneen profil bu bees boo xamante ni moom nga tuddee euh, YouTube solution moom lañ ko tuddee fii yow mun ko ko tuddee lu la neex léegi nag après mun nga démarrer personnaliser Chrome beeg yooyu voilà léegi lu ngay def lu yomb la mun nga ñëw ci kaw taper YouTube voilà pour connecter sa compte sa compte YouTube bi nga bëgg a connecter fii wala compte Google bi voilà nga cliquer fii connecter. voilà ci nga nga cliquer fii connexion boo cliquer connexion ji nga fii ngay ñëw nga ko dugal léegi sa email après dugal sa mot de passe gis nga fii ngay xamee ni séparé na ko cent pour cent mooy. sama euh, compte Google bi dama ci enregistré email yi may utiliser yëpp nga xam ne léegi su ma ñëwee di di connecté rek su ma tàppee daf may indi liste email yëpp ma choisir bi ma bëgg a connecté mais ñi nga fii détecté wu leen parce que Google ràññee na affaire bi xam na ni li ko profil la boo xam ni jotawul dara ak profil yi may utiliser léegi lu may def sama email laa fiy dugal ak sama mot de passe voilà collé naa sama email def suivant léegi mu demandé sama mot de léegi damay ñëw collé sama mot de voilà voilà di nga dinaa jot confirmation voilà léegi confirmé naa oui léegi gis nga connexion baa ngi dem léegi di nga compte bi connecté wu na fii ñi nga mu ngi nii YouTube solution connecté wu na voilà mu ngi nii léegi YouTube solution bi connecté bi mu connecté fii nag du jotee dara ak li nga xamante ni moom mooy sama beneen compte bi léegi bi xam ma connecté na fii léegi mun nañ ko tëj voilà léegi tëj naa ko léegi gis nga créel na ma icône mi ngi nii ci bureau bi voilà léegi YouTube solution créel na ma icône ci ci bureau bi voilà léegi ma ñëwaat ci compte Google bi wan la léegi su ma cliqué ci logo Google bi gis nga ñetti compte yokku nañ fi compte bi YouTube solution bi nekk gis nga ak benn compte bi mu nekkoon fi MWM bi ak conte conte gadget utile bi ñetti compte yëpp ñu ngi fi voilà ñetti compte yëpp benn bu nekk connecté na benn bu nekk am na AdSense te du ñu détecté benn bu nekk du indil problème moroomam voilà comprendre que idée bi loolu la nii mooy ni nga xamante ni nii la ñuy séparer ay compte ci Google conte yëpp ci même Google bi ngay utiliser nga leen di connecté te Google dina leen séparer xam ni conte bu si nekk jotewul ak moroomam dara ce qui fait benn bu nekk da ngay utiliser AdSense sab saa am ci jafe léegi ñu demam wan la compte AdSense yi léegi gis nga bii muy euh, m double m euh, double m bi xaar ñu ubbi ko nga xool voilà gis nga mën nañ ko cliquer mu ubbeeku ñu dem ci AdSense bi nga xool gis nga gis nga am na compte AdSense am à part voilà ñu ko ñu demaat léegi ci beneen compte bi stop nii tam ji nga am na AdSense am voilà gis nga ubbi nañ ko voilà ñëw ci AdSense bi voilà connexion man ak fan yi daa xaw a yéex ndax gars yi dañ ne la ñuy changé affaire def ko fibre optique moo tax léegi connexion bi fan yi amay perturbation quoi léegi gisoo ñu nga ñaari conte yëpp connecté nañ yaa ngi gis nii voilà ñaari compte AdSense mi ngi nii te ñaar yëpp ci Google lañ connecté voilà ñaar yëpp ci Google bi la connecté te YouTube du indil benn problème ne ma tëjal bii parce que am nga beneen compte déedéet lu YouTube du ko wax parce que lu tax parce que YouTube moom option bi mu joxe pour ñu séparer compte yi moom laa utiliser séparer compte yi ce qui fait que YouTube du ni mooy ni nga xamante ni noonu la ñuy séparer ay compte ce qui fait que compte nga foofee compte boo ajouté rek nga créé ko icône day ñëw fii si bureau bi mun nga rangale fii 10 compte 10 compte yépp am YouTube ab AdSense di monétiser te du la indil benn jafe-jafe a ah, comprendre nga ni mooy ni nga am noonu la ñuy séparer compte yi pour bañ ci am euh, problème am na tam lu ñu leen waxoon xam naa dinañ ci wax ci fin muy réutilisation de contenu changement yi ci am waaw parce YouTube da yu am solo voilà ñu dem ci euh, euh, benn canal euh, canal bi dem monétisation xam nga canal bi dafa am problème réutilisation de contenu le 8 juillet lañ ko war a demande léegi boo xoolee xam canal yi nga xam nag dañoo nekk ci cas yi ni nga xam ni dañoo am réutilisation di xaaraat peut-être duñ ko si gis voilà mais su fekkee da nga envoyé léegi demande moo xam boo envoyé demande moo xam envoyé nga ko tey wala démbala yu demee noonu YouTube su ko rejeté indil la da la defal ngay def euh, da nga def réutilisation de contenu mën na am nga gis ko ci voilà image bi nga ciy gis nag mooy comme photo bi ngay gis ni bi ñu teg nii capture écran bi nga xam ne moom la ñu mar Omar envoyé parce que moom dafa def euh, dafa lancé demande am en retour ñu def ko réutilisation indil ko euh, li nga xam ne mooy option wu mu def appel waaw mu nekk lu bees loo xam nag euh, phase bêta la nekk waaw yu YouTube ñu ngi koy testé mais nag lu ama am solo la loo xam daal ouf de soulagement la voilà ouf de soulagement parce que comme ni nga ko xamee euh, YouTube dañoo defoon bu ñu la defalee réutilisation benn option kase kase nga amul ñaar amul ñett muy toog di xaar ba mataat 30 jours comme par exemple bii ñu ngi ko defoon réutilisation le 7 juin léegi amul benn option pour jooy ko fenn lu dul même bu fekkoon ni vidéo yi vidéo original yoo si dugal la sax ñu defal réutilisation liñ lay defal mooy toogal xaar fii ak weer nga soog a demandé waat amul benn option léegi nag Google créer nañ ci léegi lu bees loo xam ne mooy appel comme content ID bu ñu la ko joxee wala réclamation ñu lay may see maye possibilité ne la boo ci d'accord nga def appel lu mel noonu tam lañ créé léegi ci euh, réutilisation de contenu léegi ñi nga xam ne ñëpp buñ ah, peut-être ñi am réutilisation comme nii comme ni ma waxee duñ ko gis mais ku envoyé fi mu nekk nii suñu la defee réutilisation mën nga am nga gis ko phase bêta la nekk nag phase bêta boo ko déggee mooy loo xam dañ koy dañ koy commencé di ko defar waaw mun na mu laaj ay juyanti ak ay jubbanti mais melagul niñ ko bëggee ñoom cent pour cent ba léegi lancé nañ ko mais dina am ay changement yu ñu ciy def voilà loolu mooy phase bêta mooy te dañ koy testé daal boo boo ko résumé léegi nag lu baax la. mais nag euh, dañ lay demander su fekkee ni dañ la defal réutilisation ñun la def de option da ngay def appel dañ la ko defal fii ci suuf da ngay def appel léegi dañ naan la appel bi nag dangay ngay def benn vidéo bu gàtt boo xam ne dama war a mën ay 5 minutes nga expliquer te ko ci langue boo xam ne YouTube reconnaître na ko waaw comme ay anglais français espagnol arabe et cetera nga expliquer li tax d'accord si liñ la wax da ngaa def réutilisation continue nga expliquer ko nga joxe say argument Euh, bu fekkee say propre vidéo la nga wax say propre vidéo et cetera bu dee da ngay copier nga da ngay copier mais yaa ngi ciy indi valeur yokku naa ci lii yokku naa ci lii nga argumenté ko daal voilà joxe daal yëpp argument yuy tax te nag du nekk benn wala ñaari vidéo mais canal bi yëpp ensemble canal bi yëpp nga wax vidéo yi ni nga koy defee li nga ciy def ak yëpp bu ñu ñu saytuwaan ñoom loolu décision bi ñu jëloon ne la réutilisation su ko defee nag dañuy jël seen ay agent parce que réutilisation bi système bi système bi moo leen di signaler ay vidéo agent bi daal di lay dóor réclamation léegi boo defee appel dañuy jël seen temps ñu examiner nag léegi vidéo yi benn par benn dootuñu yem ci système bi li mu leen signal parce que système bi mën na juum agent bi ci boppam dina dina vérifier vidéo yi benn par benn ba xam yow li nga wax noonu la demee suñ gisee noonu la demee ñu daal lay monétiser suñ gisee nag demeewul noonu réutilisation bi ñu njëkkoon jël moo baax ñu defal la ba léegi réutilisation continue waaw loolu option mais nag mu nekk option bu baax léegi dootoo xaar weer di nga am possibilité def appel ci saa si voilà loolu daal mu nekk lu positif loo xamante ne daal euh, yaakaar naa yeex nañ koo def sax voilà kon loolu mu nekk nag xibaar boo xam ne bu neex la <laughs> bu la ndaxte réutilisation sonnal nañu bëree bëri voilà léegi vidéo bi xam naa fii lañ koy yemale di wax ñi nga xam nag bokkuñu ci li nga xam mooy groupe euh, communauté Galsen Tube bi waaw mun nañ ci di dugg parce que groupe communauté Galsen Tube bi ay affaires yu am solo dina fa am euh, parce que bëri na loo xam ni dañ koy waxtaanee ci YouTube te duñ ko wax ci canal bi ndax tey peut-être day nekk ay yoo xam day fay waaw doo ko mën def vidéo ce qui fait que ci euh, groupe communauté Galsen Tube bi foofu lañ koy discuter waaw mu nekk daal loo xam ne képp koo xam ne yaa ngi suivre vidéo yi ci canal Galsen Tube bi su dee mën nga dugg si communauté Galsen Tube bi te communauté Galsen Tube boo duggee euh, adhésion bi 1000 francs da ngay joxe adhésion un an renouvelable par un an janvier ba janvier lañ koy lañ koy renouveler euh, te xam nga lu 1000 francs par at bëriwul am na programme bu am ci biir mooy comme vidéo bi ngeen gisoon ma partagé ko fan yee wane ordinateur bi ñu doon jox moom moo bi ko gañee loolu tam programme bu am ci biir la boo xam ni ku neex nga participer ku mu neex doo participer obligation mais ku ci participer tam di am possibilité euh, bu ñuy tiiree nga mën a bokk ci tiirage bi euh, bu ko defee euh, boo gañee ordinateur bi mën ko jël saa dépend bu ñu amee lu mën a jënd benn ordinateur ñu jënd benn tirage ko su ñu amee lu mën a jënd 10 ordinateur tam ñu jënd 10 ordinateur tirage ko voilà par dimanche tam dañ fay def li nga xam mooy ganu bi dañuy jël kenn ci groupe bi kenn ci administrateur yi invité ko di ko def ay question réponse ci jaar-jaaram mooy kan fu mu dëkk ak yooyu pour nit ñi xam ko xam ko tuuti comme euh, communauté whatsapp la nit ñi nekkuñu dañuy sorante euh, du bari duñ ko xamante suñu biir léegi nag euh, euh, ganu bis bi nga xam mooy am par dimanche dina tax ku ñu invité ku nekk rek nit ñi xam si yow tuuti waaw nga wax sa jaar jaar wax li la dugal ci YouTube après laaj la ay question tam ci biir YouTube euh, nga répondre pour ñu gis ni xam nga si tuuti ci YouTube ak tam yan yi nga xam daal nit ñi dinañ ko mën a xam si yow waaw loolu mooy li ci nekk par mercredi tam heure bu ñu amee temps dinañ dugal li nga xam tam mooy question de la semaine question de la semaine dañuy xool benn question ci ñu laaj ko waa question bi nag après ku ko gagné dina am loo am waaw di nga di nga am loo xam ne moom ngay gagné waa ko ko ku ko ku ko gagné di nga am maam neexal daal boo xam ne di nga ko jot voilà dama li nga xam ne yor nañ ay canal yu ñuy joxe canal YouTube lañ ko defoon am na joxe nañ si ñaari canal yaakaar na ñaari canal YouTube am na ñu gagné ñu jox leen ay canal YouTube Euh, su fekkee tamit canal YouTube amul ku ko gagné tamit di nga xaalis ngay gagné soit nga am 2000 francs ba ba ba 5000 diggante boobu voilà ça dépend ci question bi ñu posé jafe-jafe <laughs> nu mu nu mu difficile wala nu mu yombee waaw loolu daal mooy programme bi nga xam day am ci biir communauté Galsen Tube muy groupe WhatsApp bi waaw ñuy demandé membre yi yëpp nag koo xam ne rek euh, duggagoo si nga dugg si ndax amal na la njëriñ ndax dina la éviter soo amee question nga may envoyé 1000 francs parce que WhatsApp bi question direct yi euh, question. soo bokkee ci communauté Galsen Tube nag loolu da lay teggee ko boo amee sa question ci nekkul da nga koy envoyé man mais ci biir groupe bi nga koy dugal biir communauté bi soo ko dugalee ci biir communauté bi képp koo xam ne xam na réponse bi dina ñëw répondre la yow tam képp ku dugal question am nga droit nga répondre ko su fekkee question la boo xam ne peut-être gis naa ne kenn répondre ci peut-être peut-être mun na am ay kii su man dinaa ñëw dinaa ci répondre bu dee génnul YouTube ak AdSense voilà loolu mooy li nga xam ne moom moo am ci biir communauté Galsen Tube bi kon yéen ñëpp ñu leen siy woo am na tam loo xam ne tamit voilà xam naa wax jaa nga xaw a gudd mais ba léegi ñu waxaale ko rek comme <laughs> ñëw ci muy euh, ñi nga xam dañu am problème réutilisation tam maa ngi leen di conseiller Ah, wala bokk ñi nga xam ni dañuy bëgg a def ay vidéo bëgg a copier te bëgg am problème réutilisation maa ngi leen di conseiller ñu dugg ci formation euh, li nga mooy YouTube solution bi waaw ah, wane nañ fan ni ngay modifier ay vidéo ba boo demee ba war a monétiser doo am problème réutilisation euh, de contenu ñi nga xam tam bëgg nañ jàng montage Euh, vidéo filmora itam commencé nañ ko muy programme boo xamante ni pour jàngale nu ñuy defee montage la lancé nañ ko ñaari vidéo yi mu ngi ci YouTube ñi nga xam ne bëgg nañ installé logiciel boobu mën nañ dem seetaan vidéo numéro 2 bi wala numéro numéro 1 bi wala numéro 2 bi bu ñu ci seetaan rek lien téléchargement baa ngi suuf nga téléchargé filmora gratuitement mën ko installé di ko di ko utiliser loolu mooy xam li nga xam ne bëggoon nañ leen ko si njàmbaasal tuuti di leen jox rendez-vous ba vidéo bi di ñëw incha allah ngeen jëf